asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kenn ku ne xam ne ne jamono yëpp ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi di Touba Belel ci liggéey boo xam ne ni ku baax ki nga xam moo di Serigne Cheikh euh, Say Mbacke soñ bu euh, dénkoon na ko ki nga xam moo di Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom makaarimul axlaax moom ak njabootam ak taalibeem fépp ñu ñëw euh, am fi ay lu mat ñetti fan ba ñeent am liggéey boo xam ne nii Serigne Cheikh Mbacke Say santoon nañ leen ko liggéey bi nag jamono ji ñu ngi ci cëppaandaw gi fas yéene ànd ak yéen jamono ji ñu ngi def ay délégation ngir fas fas yéene jee euh, séntu yi nga xamoo di Serigne Cheikh euh, Say Mbacké yi mu fas